ménager ñëw na entraîneur ñëw na journaliste ñëw na kon loolu moo leen ñoo bokk ndey ak baay xale yi dama leen ne leen yàlla def mag ñu am ñam benn cinq minutes wala benn dix minutes ngeen seq di ngeen ko seq nga ko def waaye lii waleen ñoom ñu bokk ak baay tey nag sama ko seet na seetaay boo xam ne ngërëm lépp lu ko yemale ci ko yemale ci ko yemale monde entier ñuy takk képp kuy takk ngem wala képp koo xam ne la am intéressé la maa nga lay sant di la gërëm ndax lii dafa jafe am mbégte wala nga am bànneex àddina bépp ñëw lii képp képp suñu borom cëréele rek xamal ne réew mi nekk am dafa cër li ñu jaaxal na bëri rek daw si réclamé vingt millions ko si ko nit ñi li ñu doon jot xaalis bi loolu la xaalis la bëggoon waaw xam nga li may wax léegi xale yi dama leen ne ne mbëri dañu xam fi mën leen du mbëri rek Sénégal moo soppeeku àdduna moo soppeeku kenn ku ci nekk na nga xam fi ngay teg sa nanga xam ñi ngay waxal ña nga xam ñi ngay jëfee àddina moo tëri. waaw mais kontaan nañu bëccëg rek parce que tamit situation bi moom jëlee kenn sa bopp yi loolu tamit jur gi moom dinaa am benn problème xam euh, macha allah mooy wax dara loolu tamit dinañ daal vraiment ñu koy masawu bu ci réew mi bi ñaan jàmm ci ëxlu làmb daal vraiment mbër yi. ah mooy war ñu may ndax xaaj ñu bokk ndey bokk bàyyi. saa yi da nga wane fii sa noonu sax yéene wu ko sa noonu yéen a ko fi tey maanaam fii quelle soit situation lu a xew si àdduna nit ki même lu gën a métti si àdduna boo xaatee ne ko a tëj maanaam ay at du génn du lekk du dafa taxawaay daal vraiment mais kenn yéen a kenn daal vraiment hmm. tey ñu gis gel bi taxaw ne dëpp naa Ndakaaru ah. jaxase ak lu làmb jaay samay parfum bi ngeen déggee loolu lan lay def ci yéen ñi nga xam ne yéen a. ah wax dëgg yàlla moom dëgg yàlla xaw ma daal ma intéressant daal mooy suma frère Gris 2 moo di ko ñaan yàlla lii nga xam te moo ko topp kenn xam fu mu la ñaan yàlla yàlla seetal ko mu set wécc yàlla may ko mu teewlu ci ay njabootam soxnaam ak ay doomam ak ñu waa ngi di faas préparé comme maam yàlla dafa ko ndam mu mel ni mu mel ni lii mbër yi war nañ cee jàngate lu mbër yi war nañ cee jàngate lu mbër yi dem bitim réew. mais mbër fi ñëw tamit wax dëgg fi ñëw ñu ngi sant bu baax di la gërëm ñun Igri parce que ñun Gris Bordeaux ñun la bokkal mais tamit gis nañ ñoom lañ allah waa Guédiawaye yeeg waa Pikine yeeg mbër yëpp ñëw nañ vraiment mention spéciale mbër yëpp di la ñaanal salaam lii nag wax dëgg yàlla leneen lu fi gëj mbër yi bépp mbër bu fi duggati fii yàlla la fekk nga liggéey sa kër boo ma woote boppam wala mais ay coow ay jotaay yàlla fi yàlla fi daal ak làmb la àddina. noo dundee nouvelle bi bu nga déggee ñu ne Gris 2 tee nañ ko. ah wax dëgg yàlla man damaa tiit damaa tiit samay mbokk tiit nañ suma yaay rek boobu léegi naroon wax dëgg yàlla neuf heures suba ba léegi maa ngi fi taxaw wax dëgg yàlla ak sumay mbokk mbëri ndax kenn gi nawu ko wax dëgg yàlla Mor ku baax la ku yar la vraiment di ko ñaanal jàmm salaam daal vraiment. yàlla def na bi mu jàkkaarloog devant justice waxtaan ak moom waroon na tëdd deux ans kaso waaye bàyyi nañ loolu yëpp alamaan ko cinq cent mille non mais question situation liberté saa yi ba mun naa waawoon maanaam dix milliards liberté génn maanaam yeewu taxaw sa bunt nooy air dara dax ko non billaay walaay dara dax ko nga war a gis sa yaay gis sa dara dax nga war a sa doom dara dax ko dama ne ñu tuddee deux cent saa yi foofu ne say mbokk kenn xamul seen situation nga nekk saa benn dimension la quoi vraiment te giri wax dëgg yàlla ku xam la la xam ne du du coow ko ak du seytaane moo tax defar rek li ñu fédéré kese lay wax wax nga gis man naa ñëw ma wax tur ndaw si de moo xam de. <laughs> ñëw ma tur ndaw mu daal saa yi. fi jàmm yàgg ba siir naa Mohamed. écurie Fass yàlla fa jàmm yàgg fii nag moom yàlla fi benn mbër ñëw ci bak si Touba Mbacké. bi mënu ko maire bi mënu ko sénateur bi na ko mbër bi mën na ko koñam lu tax mbër bi ñu ko jox àqam ak yelleefam ñun ñoo takkoowul benn say nanu bokk ndey bokk baay benn tàkkusaan ku ne may sa morom xaalis ñu raye jàppal ku ne dem mais bu intérêt kama jotee na ñëpp génnandoo en masse ñu geer loolu parce que boo laalee syndicaliste yi ñoom ñëpp ñu jóg élèves yi bërki dem gis bi ñu leen jàppee fee benn boo leen ci jàpp xaw ma ñëpp génn koo laal ñëpp génn te mbër ngay laal ku nekk toog sa kër wala tamaanaam entraînement nañ bàyyi loolu bër boppam dong la bëgg su may wax nag ñu ne damaa bëri wax bëri moo wax damaa sañ wax ta xam li may wax te bëgg di ko wax ngir mu jariñu li may wax ci dëgg laa koy tag ndax séenu ma ku ma ci gërëm séenu ma ku ma ci wax merci yàlla sang borom rek laay jël di réclamer ay vingt millions vingt millions du xaalis bu ndaw de waaw comme yàlla def na nag ñun ñu réew mi réewu yoon la Sénégal pays de droit la mënoo mhm. nekk fee di di dicté say loi mhm. nekk France ba pare nag lu ma si gën a naqari fajar saa yu mu yeewoo di wax ne yëngal naa làmb ji mhm. tëdd France fii di jaay samay parfum parfum France nag gars yi jëlatuñ ko léegi gars yi Dubaï la ñuy jëlee xam naa daa daanu daa daanu waaye na làmbi feneen fii nooyul fii nooyul na Sénégal yëpp xam nañ ko boo xool sa avocat bi mu koy plaider li mu njëkk a wax mooy koo xam ne la kenn du ko dégg ci wax ju ñaaw wala wax ju ëpp wala wax ju exagéré muy koo xam ne ku rek la la ku yem la loolu tamit mu mel ni gri tamit yaram na comportement xoolal Babacar waaw waaw di nga Sénégal fii kenn mënu fee nax kenn dëgg la comprendre nga Sénégal ñëpp a yeewu mun ngaa bañ a jàng mais yaa ngi sa xel su doon benn su doon sama genre yi a ñëw tribunal ñaari Ama Baldé benn Gris 2 ñeneen ñëpp damay seet si mhm. am naan tekk nag mhm. mais barke borom Touba Mbacke Gris Bordeaux du genre yooyu buy Gris 1 du Gris 2 mhm. ñoom seen famille dañoo yaru comprendre nga famille bu yaru lañ bokk dañoo am diine am taalube femme bi nag li mu def nii c'est pas sénégalais rek tur bi rek nañ ko waroon turee. Thank you.